غير عبد وسيد خليل أبيب مثله ليس يعلن سيغ بامبا نفالي وإبقائي وفوزي بلا أنن بكوني قديم المصطفى تتبين سيغ بامبا كما قال بسبتو جيمبا أن عمر nga jaar nga am nga yool ba sëñ Moussa Ka ne déglu ma wax la la waral màggal ga nga xam ni Seex Bamba moo reyal demam ga sa jikko tax ñu dénk la màggal gi jàmbaar ji nga xam ni jàmbaari lislaam la di jàmbaari sëñ Tuuba nee naa ko li ma la gën a nawe mooy maa ngi njëkk defee constat ci Masaalikul Jinaan Mbàkke daaw ñu bari bi ñuy ut réew mi ak bëgg ay parrain xar yi bari na fa lool waaye ren mennam xaram ak xarum président Ablaye Wade moo fa ñëw sëñ Mbàkke yu daal ne nañ ma xoolal mi ci gën nañ ko yóbbul sëñ Moustapha këram fii lañ ko indi Touba. te yow luñ jox sëñ Moustapha yow mii lañ ko jox ba noppi jumaa ja bàyyiwu ko mu wét ku mu am gan gu am solo sax bu ko amee danaan ko nañ jullee ji Masaalikul naan ma wan la taaru yoonu beneen bi ci topp mooy tey xat na taw bi tëj ko tax mu ñu waxtu wii waaye moom li li mu jàpp mooy bëgg gim la bëgg tax na ba moo war di gatandu gan yi moo leen war di gunge Dubaay fu mu mënti dem ci bitim réew sëñ Touba lay waxtaane Mbàkke nag muy ñaan sag bii nga sagal lislaam téye gii nga téye yoon wi yor kàddu goo xamante ne lu la neexoon def ko ci waaye nag nga xam ni ki ngay jëfal sëriñ Touba képp ni leen ko waxee sëñ Muntaxa bëgg nga ñaanal ko nag mu am ay mébét ci dëkk bi bëgg nga teg ko ci yoon bëgg nga koy sant lim bëgg mooy liggéeyal sëriñ Touba te xam ne ko ànd ak yow liggéeyal sëriñ Touba sañ Modou Mbour kàddu ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yeneen bi ñoo ngi sant Cheikh Ahmadou Bamba ñaanal Cheikh Ahmadou Bachir mii nga xam ni moo yor kaddu yoonu murit bakki ñu ngi ñaan nga yàgg fi lool ñu ngi ñaan it Cheikh Alassane Sène soppe yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ Mamar wax na ko yaakaar naa ni Cheikh Alassane du dugg Touba ba génn te du ñëw ci Cheikh Bachir te itam fekk ko fii rek benn yoon bëgg ko bëgg goo xam ni bu nu jotaayee di waxtaan la muy wax mooy Cheikh Madul Bachir nanu ko ñaanal li mu yor yàlla defal ko ci ndam barki dem rek nga génn wax benn kaddu goo xam ni mu jëm ci taalibe yi nga wax ni li li li fi ne de kenn defu ko fi lu dul Sëriñ Tuba ak taalibe yi sa kaddu barki démb googu tasaaroo na ci àddina ba àddina bi ñëpp ñu ngi koy waxtaane léegi la Cheikh Madul Muntaxa di wax Babacar ma fa ne ni ko fukki xar yi nga mujjee jox Cheikh Amadou taxa keroog ci sama loxo bi lañ ko teg kon loolu faw ñu sede ko waxoolu li naa si xos na faw ñuy wax rafet rafet yi ak li li nga xam ni mu ngi koy jëf ngir ngir yàlla kon nag ñu ñëpp ñu ma si dégg nee na ñu ngi sant yàlla bu baax nee na ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu ngi santaat bu baax Seexil Xadim bu ma limee mën naa yàgg nee na ci yoon wi ñu mu wan waaye ñoom ñëpp ci naka la nit di bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sëriñ bi nee na mi ngi lay ziyaara nee na mi ngi feddali na cofeel gu rëy nee am ci yow dafa wax àddina li ko sos cofeel la nga xool diggante yàlla ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xool diggante seexil xaddiim ak boroomam diggante seexil xaddiim ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen booy jàng xasida yi nee na sa xel yépp ci li muy dem muy cofeel nee na diggante ñaari jëm muy yonent bi ak Seyxul Xadiim nee na loolu nag cofeel googu moo nu dal ci yow nee na sëriñ bi nee na daaw da nga koo soññ mu yóbbaale ay kadd yu bàyyi ko ci yow. nga ni li ma neex ci yow mooy wax yang ma daan wax yu daaw yeeg yu daaw jéeg yu ren yi nee na yëpp jàpp naa leen waaye ñoo nduroo nee bi mu génnee dafa wax ni nee na war naa gën a góor góorgóorlu ni suy ñëwaat ci yow kaddu yooyu nee na bañ a waroo ak ya nga ko waxoon nee na mu nekk ci boppam bis bu ne maa ngi lay sant bu wér Serigne Cheikh Madul Bachir ne mu ngi lay sant bu wér nee bi muy dugg ci kër gi léegi suñu soppe bi may seet ci biir nee na soppe bi muy seet ci biir njaboot gi njaboot gi loolu lañ ma lañ ma wan ba ma ba jox la na loolu lan ko wan ba mu jox la loxo ci teeru gi ci kanam yi kanam yi ci xar kanam yi kanam yi dafa ci ñoom cofeel gu rëy gu ñu ma ëmbal siimaawum fi wujuhi min asari sujud muy muy xar kanam yeeg yi nga xam ni nee na feeñ na ci ñoom moo tax mu ni nee na cofeel képp mooy dëgg maa ngi lay santaat ne mu ngi lay santaat nee na mu ngi ñaan yàlla Cheikh Muntaqa nee na yàlla na ko fi yàlla yàggal mu yeggale naal yi mu yëkkati nee na Cheikh Ahmadul Bachir ne da nga am lu jafe nee na kaddu yoon wi nee na du tey jii nga ko sa jikko sa taxawaay nee na sa mën a muñ nee na sa ñàkk onk nee dañoo laaj benn borom xam-xam bu mag soose la ni ni ni dañoo wax ni yàlla nee na mi ngi ànd ak aji muñ yi mu ñu déedéet mu ni inna allaha maha sabirin nee na nee na tekkiwul loolu nee na li muy tekki yàlla mi ngi ànd ak ñi ñi dul onk mu ni mu ni mu ni yàlla ñooñu la àndal nee na mu gis nag sa taxawaay sëriñ bi seexil xaddiim ngay tàmbale nee na ci moom rek nga yem nee na boobu ba léegi te ngi bëgg a yàgg nee na sant nañu ci ñëw gii ñu ñëw ci yow nee na bi ci topp sëriñ bi nee dafa wax léegi Cheikh Mountakha ni bind na benn lettre muy ministre bi yor wàllu ndox mi nii ngeen defee inondation bi Touba. nee na nii ngeen defee inondation bi Touba. pour manque ndox bi. pour manque ndox mi. mu ne solution. mu ne du solution. ma ne ndaxte ndox bii di taa Touba. nee na ndox mii di taa Touba. dafa wuuteeg ndox yi taa ci yeneen dëkk yi. ndox yi taa ci yeneen dëkk yi. ndax sëriñ bi. ndax sëriñ bi. gannaaw ban nekk ci suuf. gannaaw dañ ni ban bi nekk ci suuf. te xam ne que lépp luy taar gàncax mu mel ni or wala pétrole ak yooyu. lépp luy taar muy muy gàncax lu mel ni euh, pétrole wala or. dafay daw ci suuf. nga xam ni dafay daw ci suuf. Serigne Touba nekkoon di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ne Serigne Touba nekkoon di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. addina yëpp xam nañu ne. addina bi yëpp xam nañu ni. nee fii di Jurbel. di Touba di Mbakke. di di Mbakke. nekk du yàgg dara. ne du yàgg dara. ci jamono yii di ñëw. ci jamono yii di ñëw. ci wàllu koom. nee koom. dina nee dana bokk nag ci dëkk yi ëpp solo ci àddina nee na mu wax léegi sëriñ bi mu ni ko Touba ñaari zone la ci jiitu mooy Touba bii ñu tooge ba ca topp nag mooy sancaan yi di ñaareelu siècle bi ba ca topp nag nekk ay àll mu wax ni ndox mii di taa Touba ne taw a dugg nee na suñu wutee ay mbann nee na mband yooyu mband intelligent la leen di wax ci jamono ji nee na ndox mi dafay rogalaat nee na dem nag ca mband ya ne su demee ca mband ya nee na am na benn appareil bu koy traité lii mu jox ko tool yi la ca des nee na nit ñi mën ko naan nee na benn waay yi daf ko laaj waaye tey jii yi ne tey jii kanu yi yi war a def ndox yi fan lañ koy teg ni yooyu nga xam ni moo war a def ndox yi fan lañu koy teg mu ne kenn du ko suul ne trottoir yi dafa gàtt Touba suñu tegee kano yi dañuy jëlaat maasalewaat beneen genre trottoir nee na kano yi nag nekk ci biir ne di jël ndox ma nee na benn la ci xalaat nee na ñaareel bi sëriñ bi nee na moom moo toog ak ay nitam yu ko wër ma wax leen ni leen faaw ñu wut aéroport international xaadimu rasul Jurbel faaw ñu wut aéroport international bu xaadimu rasul ci Jurbel nee ñu def ko vidéo ñu bëri gis nañu ko nee na ñu bëri gis nañu ko ma wan leen aéroport bi naka lay linké ak jumaa ji ak aéroport bi naka lay mel ak gaaru TGV bi naka lay mel ak gaaru TGV bi nga xam ne moom la bëgg nga xam ne mi ngi ko tuddee nag circule jawaaxir fa muy daanele mooy musée bi gën mag ci àdduna bi gën a mag ci àddina mooy musée xaadimu rasul mu am benn minaret bu nekk ci wet gi di benn soro ñaari téeméeri mètre boo xam ni mesure am ca kaw ñaari téeméeri mètre ak fukk genn wàll gi marbre la beneen genn wàll gi veer nag la ne te li ci yéeme sëriñ bi suñ ko sampee dafay dugg ci loolu ñuy wax Guinness mooy li gën a taaru gën a gudd ci àddina am na juróom million chaque année di ut fan war a dem pour xool li gën a taaru am na juróom ñetti téeméeri nit yoo xam ni million luy wut loolu pour ñuy dem di xool loolu fan la nekk ci addina bi nee na ci tourisme religieux nee na Touba ci boppam mën naa dundal Sénégal waaye dafa am lu am solo la wax fan yi da nga wax ni ñii doog a toog faaw ñu muñal leen nee na mu tee wax ji benn ñaareel ba nga wax wax ju ëpp soloti nga ni ñun am nañu seexil xadim état nekk fi bañ fee nekk benn la ci ñu te muy dëgg nag te nag sëriñ bi da nga musu jóg ci loolu te Cheikh Ahmadou Bachir nee na mosoo jóg nag ci loolu ndax daaw ministre yi nga xam ne ñoo nekk ren ministre yii fi nekk ren opposant lañu opposant la ñu woon nga dalal leen nga dalal leen comme ni nga dalale ministre ya fi nekkoon ministre ya fi nekkoon waxuloo caméra yi te waxuloo caméra yi nañu nëbbatu nañu nëbbatu bañ dem bañ dem kooku dafa méngoo nee loolu dafa méngoo ak wax ji nga wax ñëpp rafet ne Mbacké ñëpp ya yaa tedd yaa tedd wallahi se Ahmadou Bachir Cheikh Alassane ne yaa tedd nee na yaa tedd yaa wóolu Serigne Touba Cheikh Ahmadul Bachir ne yow mi toog yaa yaa wóolu sa maam Serigne Touba ne jamono jooju nga koy wax su fekkoon ni da ngay xaar dara ci ñi ne wax ji du jóg waaye nga jubal ko jàngal ñëpp ne ne li nga ko gën a jàngal nag ci loolu mooy baatu Serigne Touba nazaxtu bi sukuri sikaayatan mooy jaay gi mu jaay jàmbat jëndee ne jaay gi nga xam ni moom sëñ Tuubaa jaay na ko jàmbat waaye waaye loolu nag da ko jëndee ak cant waay waaye Cheikh Mouhamadou Bachir ne loolu nga nu jàngal ne fi muy daanale ne ne mi ngi jéggalu ci kaddu yi ne fi muy daanale benn bis Abdoulaye Wade dafa wax dafa am benn nit bu leen toppatoo lu am solo nee na pour réew mi. nee na bi nga xamee ni waa def na ko Abdoulaye Wade dafa toog ak moom mu ni ko tey daal dama bëgg nga wax ma nag lan nga bëgg ma defal la ko ngir mbégte mi ñu am ci yow mu ne ko aajo bi ma am ñu ko ah sama aajo nag yàlla rek laa ko diis ne président Abdoulaye Wade ni ko xanaa xamoo ni may président mu ne ko mën naa la fajal aajo bu ne mu ne ko ba mu des bi te nee na aajo boobu yàlla la bëgg mu faj ko te yow mi toog amoo solution ba Abdoulaye Wade nee na ko ne ne su waa ji waxoon dix milliards nee na mu jox ko ko nax li mu defal Sénégal daal ne boobu ba léegi wax ji ma waxanteeg waa ji nee na mënta jóge ci sama bopp waay Cheikh Madul Basir wax ji nga nu <laughs> wax ci fan yii waay waay ne du jóge ci sunu bopp nee na tax nga ñëpp jànju nag taxawaat xam ne xam ni yàlla rek moo fi ne xam ni yàlla rek a fi ne ñu ngi lay sant bu wér ne mbooloo maa ngi ni nee na ñu ngi sakku ñaan ci yow foo jaar sëriñ bi yoon la Cheikh Ahmadul Bachir ne foo jaar yoon la ne ne nee na foo jaar yoon la ndax ndax sa taxawaay ndax sa bëgg doomu aadama ndax sa bëgg doomu adama sama waajur ne nee na waajuram wax naa waxaat naa la ne wax na la ko waxat la ko ne saa yoo ci télé bi ne saa yoo bi ne mu woo ko ni ko demal nga seetaan ca niroowal ne bi mu la koy wax yàgg na ne foofu la yemale wax ne ne alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yëg nañ cofeel gi làmb ci sa biir xol ndax bu nit bu waxee rek feeñ ne nit bu dañuy wax ne bu waxagul kenn mënu ko atte waaye bu bindee maqaamatu xariri ni mu ko waxee saa soo bindee wala nga wax rek dañuy xam sa xóotu xel dañuy xam sa valeur kon cofeel gi nga am ci moom yàlla lañ koy bàyyee moom lañ koy seereel ak Serigne Touba mi tax ne li ko ëppal solo ci say kàddu nag ne dégg gi nga dégg Serigne Touba. mooy Serigne Touba. nee na Serigne Touba. dafa xatalul mbiram. dafa xatalul mbiram. ku yaatal mbiram la. ku yaatal mbiram la. nee Cheikh Saliou danaa wax ne. du ma fekk lu yàlla yaatal. du ma fekk yàlla yaatal. ma xatal ko. waaye yow itam. waaye yow itam. yaatal nga lool. yaatal nga lool. nee ku dégg nga wax. nee ku dégg nga wax. xàmmewuñ la ak murit bay tarbiyewu ca daara ja. ci sa bëgg Sëñ Tuubaa. te muy lu dëgg ci yow nag ndax nit bu dee waxi maslaa ak rafetal faaw nga xam ko sëriñ Touba daa wax ne kaddu bu jugee ci xol kaddu bu jugee ci xol ci xol lay tabbi waaye bu jugee ci làmmiñ day jaar ci nopp yi rek jàll waaye sëg bëgg Serigne Touba loo def mu fenc loo jëf mu fenc ba ci masaali gi ñu tudd léegi taxawaay ba nga fay taxaw bépp. ak cofeel la ak fonk Serigne Touba ak dégg Serigne Touba ne dégg Serigne Touba mooy xam ne bi xidmatin aw bi xubbin ku ca bokk rek tàbbi nga ci biiram ne mas naa dégg Serigne Souhaïbou day wax di baati ne mu wax ne ñi bokkul ci yoonu murit bëgguma kenn ku leen di tudd. ndax ku ci nekk kilifaam dénk na ma la ne Serigne Touba moo tax ñëpp la jaboote képp kuy ashadu an laa ilaaha illallah ci njabootam la la boole ne yow dégg nga Serigne Touba baax nee saa yoo waxee mu xam ko ci yow foo jëfe mu xam ko ci yow kon nag sant gërëm rek lañ lay amal nee na am na sax kersa nag Serigne bi ne ni mu la ko waxee li nga ko defal ci lu baax. nee na jiwuñu la ko te as gor liy metti ci moom nee nit lebal ko nag lu la fayagul waaye ne mi ngi ñaan yàlla di ko ba fay ko mbàkk di nga ko ko fay nee na wax nga ko daaw ni ko nee na soxna moom yi moom Serigne Saliou ak a baax ku ko xam ku ne xam ne na way juróom wa meloon rek la mel ku mën a segg la. bëriwul ñu may ci boppam te bariwut ñu may ci boppam lu bari waaye moo yóbbante daaw ci sëriñ bi dénkaat ko dénkaat ko sa jëmm ji ne loolu bariwut lu mu koy def nag ne kon loolu yi buñ la téewoon benn téewaat nañ la fukk ngir jëmmam jooji ak la ko jëkk jëpp lépp ne ak li ngay rafetal jëmale ko ci moom yëpp ne fàttewu ci dara jërëjëf Mbàkke jërëjëf ah Cheikh Alassane tey de tey de ah, tatabayanu Bamba ne ku màggal bi subtugeem ba ak nga umra nga jaar nga am nga yool ba sëñ ne déglu ma wax la waral màggal ga nga xam ni Cheikh Bamba moo reyal demam ga